ban euh, Silane bii nii nii fii nii. waaw maa ngi uh-huh. maa ngi leen a fekk. yaa yoon bi nii rek. waaw léegi ah. hectare bi yëpp. hectare bi yëpp dañ ko mën a dox. 14000 ah, mètres carrés. ñun sax dañu fay yàggu ndax fii day jub. waaw pour man da ngeen may topp damaa bëggul leer rek de. gis nga courant bu bëggee courant day difficile bay bëgg a dee day facile maa ko day difficile. day facile bay bëgg a dee xool nañ ko mën na pompe mën na lii. lu xew TV seen YouTube sénégalaise. da nga bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. asalaamaaleykum wa rahmatulah taxala wa barkat man Vieux Sall euh, su ma Makan Sall. maa lay tontu ci sa audio bii nga wax ci problème mu commissaire xamanam euh, li ma lay xamal mooy maanaam dañ ne police dafa nekk fii pour aar askan bi mais déedéet police actuellement nekk fii pour aar askan bi parce que gis nga. maanaam colonialisme nit ñi colonisé ba léegi ñun ci loolu lañuy ñuy dund tubaab ji moo ñu moo ñu moom ba pare jàngal ñu won ni ñuy defee par force ñu doxalee noonu xam nga bu njëkk ba buñ nekk commandant diw commandant ordre la rek beneen affaire la parce bu njëkk ba maanaam tubaab bi dañuy utile bi boo déggoon ñu samp fi police samp fi gendarmerie samp fi militaire dañ militaire kii doon boobu maanaam police lañuy jël yaa ngi dégg texte pour yaa ngi dégg ku sëqat ñu jël la bunduxatal la pour ñeneen ñi ba ragal maanaam loolu moo coordination boobu mooy wéy ba léegi ba léegi mooy loolu maanaam bu njëkk ba da toog police dañ ko fi tegoon uniquement pour ragalloo nit ñi pour ku jéem a jàng ñu toroxal la loolu moo fi amoon ba léegi nag moo fi nekk yow fi ni nii tey bu fekkee say say tànk bëriwul police soo duggee police tey jii nii da ngay rafet bi da lox ndax am na noo xam ne yow soo ko doxalee rek dañ la ñàkk kers boo xam ne yow xaru sax moo lay gënal boo nekkee gor maanaam police fuñ taxawee population bi taxaw quinze minutes wala wala wala seconde nga gis ñu toroxal kenn koo xam ne maanaam nañ koy toroxalee du dara waaw parce que police boo déggee ñu ne pour police normalement dafa ñëw pour aar nit ñi aar seen alal aar seen lépp waaw mu ngi mel ni tey nga doom xale bu ndaw bu dogu juddu nga jox ko benn baabaan baabaan maanaam nga ut ba sa benn sa mbindaan yaa ngi dégg teg ko pour mu koy surveiller mu koy sàmm di ko xool maanaam yaa ngi dégg bañ dara métti ko bañ dara gaañ ko bañ dara kii ko loolu mooy rôle police mais police bi nekk ci Sénégal moom euh, turu police la yore mais du police maanaam toroxal doomu aadama moo leen tax a jóg. doo dem ci benn jataay ma nga nga nga dugg police ne takk rek te gisuñ kenn ko xam dañ koy toroxal e eh, looy fii jógal fii e demal lu ñàkk kersa lañ lay def duñ dem ci benn intervention boo xam ne duñ fa ñàkkalee kersa nit doomu aadama yi dañ leen ragal ragal ragal ragal boobu bu jigi fi ni nii yàq mooy loolu ñoom defe ne ñoom daal booy booy booy xuloog booy wax ak police sax mooy dama lay tëj léegi waaw ngay wax ak police léegi-léegi mu ne dama lay defeere léegi waaw loolu fan la ko teg parce que problème bi mooy ci njiit yi la ñeen di jàngal ak ñi ngi xam ne ñooy kilifa yi loolu la kilifa boo xam boo gis rek tey ab ndongoog daara la woon jaar nga ci xale bu màgg jaar ci jànkartoo ba ba nekk président lu ne gis na ko maanaam li li ndawal buur yi def yépp gis na ko dara umpulu ci mais saa boo yéegee rek sa bopp nga sa wax nga fay nekkal la li nga xam ne moom la population bi doon jànkaloo sa yoon nekku ci bés boo génnee nag di commencé taxaw di révolte ci loolu day mel ni boo ko boo boo toog bu demee boo toog ci saisine moom day mel ni suñu borom bi dafay dafay muur sa bët ci loolu nga di ko teg bët bii te doo ci wax dara dara su kon tey police bu rey nit yaa ngi ne carrément ñu ñu ñu ñu ñu collègue police boo xam ne rey na nit tey ñu jël la yaa ngi dëkk juge la juge boo xam ne yaa ngi dëkk teg la dix ans wala teg la vingt ans ñu gis benn police boo xam ne kat kii kat yaa ngi ne ëpp oh, diw de commissaire te ba léegi mu ngi ci kaso bi wala yaa ngi dëkk kii bu ne mu ngi ci kaso bi kon doo dootu amati mais doo ko gis doo ko gis maanaam ñi li nekk ci police moo nekk fépp même civil yi nga xam ne nekkuñ ci nekkuñ ci police sax yaa ngi dëgg fépp la waaw boo duggee kër gu nekk yaa ngi dëgg dangay tànn ñu baax ña am na ñu bot nga dugg police dangay tànn ñu baax ña am na ñu bon foo mën a dugg maanaam loolu la fi am léegi nag ci biir ñi nga xam ne nag ñooy tànn parce que soo demee ba ñun àll ko yow kat ndombal lañ la war a takk wala nii nga war a mel responsabilité dafa métti ñu ne yow mi da ngay dem ba ñun al commissaire wala yow da ngay dem ba ñu ne procureur nga wala da ngay yóbbu ne ñun kii attekat la ñay tànn ñooñu war nañ dimbali askan bi xool étudier bu baax ñooñu nan la ñuy mel nan la mel nan la mel ba mu na ñii kat jar nañu jox njiit ñu jox la njiit ñu ko doon tànn noonu kon parce que police benn affaire dafa am rek quoi police civile waru ko ñeme waru ko ragal maanaam civil waru ko ñeme waru ko ragal maanaam civil dafa war a am kers police maanaam am kersa police civil bi da war a am kersa police waru ko ragal waru ko ñeme police bi aussi mu ñëw ci moom di ko xelal di wan ne ko carrément man dama ñëw pour di la aar rek su ko defee euh, kenn ku ne bu defee rôle am jàmb dañu ñooy mais kii xelam mooy naa ko jaay naa jaay doole naa fexe naa fitam boog yaa ngi dégg su ma taxawee du ma ñeme te loolu danger la ci yaa ngi dëgg ci ci ci police bi def loolu maanaam policier bi man li ma xam ci policier bi mooy dafa war a am xalaatal nit na ne dama ñëw pour àddi aar ki nga xam ne mooy citoyen bi aussi civil bi am kersa ci ci police bi vraiment war naa rus lii ndawal buur ñëw du ma ci fekk man de war naa rus lii ndawal buur ci fekk nga àgg police yaa ngi deg ak sa yar ak teggin yaa ngi deg police bi aussi jàppale ne carrément ko ah, kii kat yar ak teggin la ba naa ko traité ak yar ak teggin mais loolu dara du fi am dara du fi am parce que dañuy dem boo mujj gi population Sénégal la majeure partie du mën ñëpp xamante ne du mën a ñëpp yaa ngi dëkk dañu mais am na ñoo xam ne yaa ngi dëkk jalgati dañuy jalgati ci loolu nag yow mi nga xam ne police bi di sàmm nag aussi booy yaa ngi dañu jël la jox la ndox mu tànk pour carrément ngay sàmm ngay sàmm war nga jiital ah carrément ki may sàmm nii war naa ko jox xel ak xalaat bu wër mais loolu amul boo gisee ñaar boo gisee muy carte civile bi ak yaa ngi dëkk euh, civil bi ak homme de tenue yëpp kenn ku ne da gis ñaa ngi dëkk day jalgati fii kii jalgati loolu mooy problème bi problème bi mooy nit ñi dañoo yaratul léegi donc nit ñi dañoo yaratul léegi dafa mel ni yaa dafay léegi ñooñu am na ñoo xam ne ñu ngi police am na ñoo xam ne ñu ngi ci civil bi mais loolu su fekkee yàlla dogal na ne yaa ngi dëgg dañoo jël koo xam ne yaa ngi carrément kii kat dafa jaroo sagam wala lu ko neex lay def ah bu dugg police lu ko neex lay def loo def ko wasalaam